Salam Sénégal Senegal, ah. suis leen nuyu di ah. Je pas là donc je viens d'arriver ma je parce que ci lettre parce que lettre bi mi ngi jaabante lu bëri ngi jaabante sama Je suis nañ ma lettre Je temps ma sama live Facebook ba pare ñu wat man parce que je ne li parce que dañ ma Je lettre ne ma dama Je fay man ñu ñëwaat nag insister parce que nee nañ réagir ma defuma dara këyit baa ngi nii regardez gis ni direction des services fiscaux adressé à mademoiselle à madame Koumba Diallo mi ngi nii yéen a ngi gis bu baax ah gis ngeen ñu ne dama wala dama leen yoreel 41 millions ñu ne dama leen yoreel dama leen yoreel 41 millions gis ngeen waaw mi ngi nii je je prends nag l'opinion en témoin mi ngi nii xamna ni su nekkon man ma len ko yorel man dama koy fay waye man lima jaaxal bala ngay fay impôt nga wara am ay source de revenu ay entreprise awma ci yoyu dara kon nak je pense que ni vous êtes trompé de personne da ngeen wara dem ci ñu wara fay te fay ñooñu ñu fay man na ngeen may ma sama jaam ndax man politique lay def mouvement la créer wala léegi kuy politique da ngay fay impôt ngeen wax ko mu leer parce que nak yeen am ngeen droit bokku kenen amul droit bokku am ngeen droit wax keneen amoo droit wax te réew mi ñun ñëpp ñu bokk ko te ñu yem fi lii nag dinaa ko dénoncer jusqu'à la dernière énergie instant bii nii lu ngeen bëgg duma leen ko may li ngeen wax ma fay ko aw ma ko ndax aw ma ko dama ko amul sax ba koy fay donc euh, aw ma société aw ma entreprise aw ma source de revenu kon nag impôt bi ngeen ma indi laa bëgg a xam pour lan la du man maa ko war a fay da ngeen a juum. damay laaj dans quel pays sommes-nous dans quel pays sommes-nous boo ko bëgg sax dugg si politique ñu lay xokkatal di la indil ay impôt yi nga xamante ne yow xalaatoo sax fan xamoo sax fan la jóge di la créer ay affaire di la ko ci tegal ay montant yoo xamante ne mooy loolu juste pour euh, dagg sa moral wala pour euh, décourage loola wala pour sonal la wala pour xokkatal la sama gars yi Sénégal gu ñu nekk nii beneen xeetu Sénégal la ñuy dund instant bii nii beneen Sénégal moo moo moo moo am instant bii nii politique ñoom ñu ngi ci mais keneen amul droit nekk si man mouvement laa créé commencé dugg duggaguma sax joxe dugal bopp rek ñu commencé waaye ñun lii duñu tax a dellu ginnaaw te duñu mës a arrière jërëjëf.